ci doyen Albert li mu wax léegi ci Birima wax. Mm-hmm. d' abord ci bu jëkkee ci point bi nga xam ni moom la mooy le cas euh, l'immixtion du pouvoir n'est-ce pas ci euh, exécutif ci judiciaire mm-hmm. bu ñuy indiwaatee un peu le cas de Karim Wade li wax sànq. bi ñuy créé créé yi y avait vingt cinq dossiers benn kese lañ ci traité mooy bi mu wax ni yenn moo mooy teg coono ça veut quoi loolu rek ça prouve nettement que c' moom mooy manipuler mooy instrumentaliser la justice d'ailleurs le le le le procureur Alioune Ndao actuellement il est membre de de wax na ko nee na Macky Sall da ko wax carrément bul jàpp Abdoulaye Baldé moom mu dem jëlee ko indi ko pour entendre ko donc yooyu moo indi lii tey donc moi je pense que loolu li mu laaj comme doyen ni ko wax des ref une réforme profonde. Hmm. su ko defee on règle une bonne fois pour toutes constitution il faut ñu la problème des mandats moom le président avocat di propose ci livre nii. quelqu'un boo xam ni nekk nga da nga war a séjourner ci pouvoir bi warul ëpp dix ans même boo defee cinq ans tey ñu gañe la cinq ans plus nga ñëwaat wala sept ans nga dem keneen ñëw nga war a ñëwaat ne candidat boo boo fekkee li durée mandat bi se cinq ans alors que boo boo gañee cinq war a def da ngay dépasse dix doo bokk loolu bu ñu bindee de débat mandat yi day jeex hmm. séjour présidentiel la ñuy wax ni warul dépasser dix ans maanaam même boo defee maanaam waroo ñëwaat. waroo ñëwaat maanaam tey par exemple admettons comme le cas de Macky xam nga dafa def septennat. ñëwaat def quinquennat. xam nga dépassé na dix ans yi. bu fekkoon par exemple dafa defoon cinq ans. cinq ans ñu changé fekk constitution bi euh, durée mandat yi sept ans la. bu waree bokkaat warul bokk parce que bu boobaa day dépassé seize ou dix ans. Hmm. ok dootoo ñëwati comme l' éternel recommencement parce que le débat des mandats la ni a def noonu la Macky def dafa ñëw. changer affaire yi jëlee ko septennat indi ko quinquennat hmm. waat dafa ñëwoon fekk ko euh, def la même chose inversé ko loolu keneen ko ñaar aussi day defaat la même chose bee bokk ci booy bokk ci <laughs> bu ko defee c'est l'éternel commencement